أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه إلى لقاء الله بوكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي تاي ديني وقتا توتي جأدنا دفع أمتا قاي باخي كدون دينكم بكم جلتم نكو اجعل الهم هما واحدا هم لقاء الله عز وجل هم الآخرة هم الوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية مانجلي دينك قد سيدت مويلا تموي ألق يوم القيامة بوداجيك صبرهم نانغا ورا تخفي تكلم أك بوليم نو مسادفنا بانغا وقو أقلو متوتي توتي يالله سبحانه وتعالى موخني بس بوبو لما مسا بندنغا فتاو دردو نبونك لبنان فانغ loo mën a yittewoo nag lu dul bañ a am gàcce ëllëg ci kanamu borom mbindeef yi yitte jooja ju ñàkk solo la amul lenn lu la war a tiital wala mu lay jaaxal wala muy doon sa njàqare lu dul loolu kon bokk yi dunduk àdduna gi mënu ko def sunu yitte ba ñuy fàttaloo ëllëg di àllaaxira àdduna amul solo sallallahu alayhi wa sallam nee na law kaanat ad-dunya taadilu inda allahi janaaxa ba'udatin ما سقى كافر منها شربة ماء solos àdduna maanaam valeur am ca sunu borom subhanahu wa taala bu ñu ko peese woon ak laafu yoo ñu tolloo rekk kon yéefar yi du ñu ñam ci àdduna lu toll ni guuxum ndox lépp lay jox jullit yi àdduna ñàkk na valeur lool fa yàlla segam taxul mu yem ak laafu yoo fa moom صلى الله عليه وسلم لنا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أسبعه السباب في اليم فلينظر بما يرجع الدنيا بوكدون مينغلي أك الآخرة مين ملنا بوتغون سبارا مثلا تبنو دوم بطاس دال دي لكي تق نموي نيوي نونو لأدنا نيكي صلى فرابور أك الآخرة الآخرة صلى الله عليه وسلم لنا من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجعل له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له كو خمني yéeneem jépp mooy sàkku àllaaxira dara yitteelu ko lu dul ëllëg yàlla dina def koom-koomam ci xolam muy ko doylu dara du ko gondi dara du ko tiitloo ba muy fërri fërri fu ne mu daw jëm fa ngir alali àdduna yàlla da koy dajale léppam yombalal ko ko àdduna dikkal ko sukk fi kanamam jébbal ko boppam mu ne waaye ku def yéeneem jépp muy sàkku àdduna rekk yàlla day def bëtam yi du gis lu ak ñàkk mu di ko ragal di daw waxtu wu ngir dajale ak barile alali aduna xelam du dal mukk lu mu am am di bëgg lu mu ca dolli ba tax du am noflaay mukk te nag du am lu dul li ko yàlla bindal ci wërsëg kese kon li wér te wóor nga war ci am yaqin mooy ne yàlla moo yor wërsëgu jaamam du jaawale mukk di ko jox keneen kenn mënta lekk sa wërsëg doo dee mukk tamit te jotoo sa wërsëg wépp wi la yàlla fàggul loo liggéey liggéey ak loo sonn sonn ci fàggu alal doo am lu dul li yàlla bindoon ne faaw nga jot ca wa fi wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha kon nit ki lu muy tiit ci loo xam ne yàlla bind na ci azal ne dina ko ko jox te yàlla lu mu wax def ko sallallahu alayhi wa sallam nee na inna arrisqa la yatlubu al abda akthara mimma yatlubuhu ajaluhu nit ki nim ko wóore ne fa yàlla wax ne fa la dundam di yem fa la yem faw mu jot ci wërsëgam tamit moo ko gën a wóor kon ni la dee di àllawti ko nii la sa wërsëg di àllawtikoo moo ko ëpp sallallahu alayhi wa sallam nee na law anna bna aadama haraba min risqihi kama yahrabu min al mawt la adrakahu risquhu kama adrakahu al mawt bu fekkoon doomu aadama bi day daw lu mu man di làqutu ngir wërsëgam bañ a agsi ci moom ni muy dawe dee ak di ko moytu du tee wërsëgam dina ko dab ni ko dee di dabe أما بون بين برم خم خم بوني مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه تبعك مني نما لي مثال سورسك بيني ساكو موي ميني ملني ستاك نير بيني أندل دي دوخ بوكو توبي دوكو جو تبوكو واني كناو متوكو موتخ بنين برم خم خم وخني لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما كتب إلا ما كتب الله لك مني لي يلا ورل انت ورسل بوم لا سخال با ngay sagane li yalla faratal ci yow ci jamu yalla boko defé rek jaay nga sa alakhirah jëndé aduna te aduna kat do ci am lu li yàlla bind ne di nga ci jot moo tax cheikhuna alxadim radiallahu taala anhu tamit wax ne bi ma xamee ñaari wamaa yii laa dal di noppalu ci benn bi te sóobu ci bi ci des muy wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi risquha lépp luy dox ci kaw suuf sun borom subhanahu wa taala moo la war moo la war lul sa wërsëg ak aaya bi di wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma bi ma xamee ne lépp luy dund rekk wërsëgam yàlla ku ko warlul lool ci laa noppalu ci sama wërsëg ndax dama leer ne yàlla lum la war lul di nga ci jot bi ma xamee ne yàlla dañoo bind ngir ñu jaamu ko laa xam ne kon jaamu gi man la war te kenn ma ko defal ma jóg nekk ca ak gëmadi yàlla ak ñàkk a doyloo yàlla ak ñàkk wóolu yàlla weesuwul di kërti kërti ci li la yàlla warlul sànni fële li la war te kenn du la ko defal xam naa danañu ñëwaat ci bunt bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala